wa man ihtada bi hadihi ila yawmi din mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa ñi ngi nuyu mbokk yi ñuy seetaan yëpp te di ñu topp ci seen seen MKTV muy Muqaddimatul Xidma TV di seenu Grande Mosquée de eh, di leen nuyu di nuyu jullit yi yëpp ak fu ñu mën a nekk di ci jiital Cheikh Mouhamadul Muntaxa di ko ñaanal sun borom mu yàggal ko fi te wéral ko Euh, di am mbégte bu baax a baax di ñëwaat ci seen émission bi nga xam ne euh, seen bi da leen koy defal ci weer wu nekk ñaari yoon muy émission gàggantiku te mbokk yu bari di ci di ko yittewoo di ci gàggantikoo ci seen diine ñenn ñu mu leen di fàttali lu ñu xamoon ñenn ñu mu leen di xamal lu ñu xamutoon euh, loolu nag tax na ni ko jullit di yittewoo mu doon loo xam ne tamit lu seen bi yitte yittewoo la moom it ngir di leen ko indil Euh, xam nga ne nag émission bi jàll yëpp yi ci ëpp ci ay laaj ak ay tontu la jëm la jëmoon yi nga xam ne moo fi rotoon ci ay laaj ak tontu ñu ñu tontu ko lu tee tamit incha allah bokk yi nga xam ne bëgg nañoo laaj bu ñu yónnee laaj yi ci whatsapp 77 531 91 98 yeneen émission danañ ko tontu incha allahu rabbi tey nag dañuy ñëw ngir continuer euh, euh, suñu émission ci. ñu ngi woon ci buntu làpp bu ngeen ñu daa topp xam ngeen ne ci biñ mujjee indi bind yi ñuy joxe muy bind gàggantiku yi ñu ngi woon ci buntu laab ba léegi ci biir loolu nag lañ la bëgg a woyalaat incha allah kon ñu ngi fii ci Daaru Salaam Ndaam kër Serigne Mbacke Abdourahmane euh, ngir fas yéene woyal bunt bi nga xam ne ci lañ tolloon euh, bala ñu ko bala ñoo wax li ñu war a waxtaane ñu jox Serigne bi mu nuyoo Serigne Mbacke bisimilah. Euh, aoudu billahi min alcheytan bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin wasalaatu wasalaamu ala sayidi almursalin maulana muhammadin wa alihi ajmain mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu eh, sëriñ Abdoulaye maa ngi lay nuyu di nuyu mbokk yi nga xam ne ñu ngi bàyyi xel ñëpp ci ëttub xam-xam ëttub diine bi dellu si di leen ndokkeel di am mbégte ci dajawaat ak yéen ci noonu nga ko waxee ci bunti xam-xam yi nga xam ne baaxoon nañ ko seq di ñaan yàlla defal ñu ci tawfiq defal ñu ci taysiir waaye nangul ñu lépp luñ ci def sëñ jërëjëf euh, sëriñ Mbacke Abdourahmane euh, jërëjëf it mbokk yi nga xam ne ñoom la àndal émission bi di sëñ Abdou Khadir sëñ euh, mbokk yi kon tey li ñu war a gàggantikoo ci émission bi dañu ñëw ci lu am solo loo xam ne yitteel na góor yitteel jigéen muy al aydu wan nifaas maanaam li ñuy wax mbërëg xëy na sunu mbokk yi nga xam ne ñoo gën a nekk ci dëkki taax yi di ko tuddee règle maanaam dama nekk ci sama période lu ñu ci bëri moom la ñuy wax loolu nag dafa am ay sart yu ci lislaam tëral yoo xam ne jullit bi daf ko war a xam maa dafa am solo ci ci nit ki diineem lépp loo xam ne moom la ci war a xam ci loo xam ne da koo war a jëfe wala mu war koo moytu te lenn lu ci nekk rek mën naa indi ay conséquences ci ak jaamu yàllaam yu wóor man wala ci wala mu mu doon lu koy lor tamit su ko defee kon loolu tamit dafa doon ponk boo xam ne sunu mbokk jigéen yi yitteel na leen waaye tamit suñu bokk góor yi ndax tamit am na ci période yoo xam ne tamit su ci nit ki tollee góor daf koo war a xam euh, moytu ko jigéen nag moom rawati ci moo tax sëriñ bi euh, lim ñuy gàgganti tey mooy suñ koy laaj lan mooy mbërëg maanaam lan mooy al aydu su ko defee su ci ñëwee ba yaatal ci su ko defee ñu ñu indi ñu ñëw ci dàmmi nifaas muy deret yoo xam ne nit ki daf koy gis ginnaaw bu mu amee doom mbërëg mi nag moom am na ay sart waaye ci nit ki dana koy gis ci bu tàmbalee ci benn aas bi ba fi mu loolu nag ci la ñuy war a gàggante muy lu am solo loo xam ne dana yitteel jullit kon sëriñ bi bismillah euh, jërëjëf sëriñ Abdou Lahad noonu nga ko waxee buntu bu am solo la mhm. ndax euh, dafa aju ci jaamu yàlla gu am solo muy julli mhm. ak koor mhm. kon lu mat a xam la yitte ju mag lañ ko war a jox li ñuy tudde alxaytu te wolof yi di ko tuddee Euh, mbërëk mhm. wala ñuy wax gis baax mhm. loolu boroom xam-xam wax na ci xamle nañ mooy lan xamle nañu diir bi muy am gën jaa néew gën jaa bari xamle nañu it jigéen ñu ko gis yan xeeti jigéen lañ ak seeni atte mhm. ak it gën jaa yàgg lan lay doon ak it lan lay bañ maanaam ku ko xas gis lan lañ koy tere ci lislaam ak luñ ko may mu def ko hmm. yëpp yu am solo la moo ta xam hmm. Hmm. bi ci jiitu mooy xaydu mooy lan borom xam-xam yi ñu ko jàngalee dañuy wax ne deret lay doon ni deret baaxoo mel xonq mën naa ñëw mel noonu waaye dana doon deret ju nga xam day mel ni dafay gën a jeng jëm ci ñuul ñu koy tudde kudra léegi dana xaw a mel ne dët xaw a jaune yooyu yëpp ay meloom du doon benn façon moom du benn façon kon yooyu yëpp lu ci jigéen gis rek ci ci ci ci waxtu yi ñuy wax nii. Mhm. na xam ne mbërëg la gis. mën naa doon deret ju xonq ni deret baaxoo mel mën naa dem jëng jëm ci ñuul mu koy tudde kudra wala mu xaw a jëm ci jaune mel ne dëtt waaye yépp nañ xam ne xaydu la. Mhm. deret la joo xam ne nag yaxruju bi nafsi mhm. mooy lan ab gaañu gaañu du ko génne feebar du ko génne day jékki-jékki di génn rek lu baaxul génn la kon koo xam dafa gaañu ci kanamam. am deret yu génn duñ ko tudde xaydu ku jaxasoo borom këram deret génn duñ ko tudde xaydu ku wéradi wéradi ko tax deret di génn duñ ko tudde xaydu kon deret la joo xam ne lu baaxoo génn la bu waxtoom jotee mu jékki-jékki di génn maanaam xamul luñ sabab sabab bu tax ñu ne nanga ma tax mu génn mu ci loolu lu ci mën a xam la euh, ci awray jigéen kanamuk jigéen ñi lay génne du génn ci suuf ci kanam lay génne kon nit ki bu amoon deret ju génn ci suufam lu mën a mel duñ ko tudde xayd waaw hmm. faaw mu doon loo xam ne ci kanam awray kanam ji lay génne jigéen joo xam ne it toll na ci mën a ëmb moo koy gis jigéen joo xam ne mënta ëmb ndaxu ndawe du gis jigéen joo xam ne weesu na ëmb ndax mu mage du ko gis hmm. maanaam ku amagul juróom-ñeenti at lu génn ci moom du mbërëg hmm. ku weesu juróom-ñaar fukki at lu génn ci moom du mbërëg am na nag diggante yoo xam ne boo ko bu ci nit gisee dara dañuy laaj jigéen ñi lu ñu wax dañu jàpp loola jigéen ju am juróom-ñeenti ba fukk ak ñaar fukk jëm ñett ndax léeg-léeg nit gaaw a gis baax kooku dañuy laaj jigéen ñi ba xam loolu mën naa doon teewal déet bu doon léegi mën nañoo dañuy laaj docteur yi jigéen ju am juróom fukki at jëm kaw ak te àggu juróom-ñaar fukki mhm. nañ laaj jigéen ñi wala docteur yi waaye bu xasee wees juróom-ñaar fukk moom dañuy wax ne nekkatul mbërëg bu motul juróom-ñeenti at du barat ki toll ci ëmb mooy kenn ki am juróom-ñeenti at àggagul juróom-ñaar fukki at hmm. dañu lay wax ne ñoom mën nañ koo gis deret kon de mesure sax waaw xam nga mandarga mesure mandarga mesure doonte feeñagul ci ñoom la doon bokk na ci yi nga xamee ne nit ki hmm. jigéen ji baali xana mooy mu gis deret ji hmm. waaw nga xam ne mën naa am ci la tàmbulee ak ak baali ak buloo xam léeg mu am su ko defee diir bi muy am nag dañuy xàjjale bu dee ci wàllu jaamu yàlla ak bu dee ci idda hmm. xam nga jigéen ju iddawu toll ci gis baax dañ ko naan bu ko borom ko na fa na toog ñetti laab hmm. loolu bokk na ci li amal solo sax mbërëg mi ndax léeg jigéen tas ci ab sëy ñu di ko toogloo mu war a xam ñaata mbërëg la war a gis hmm. door a set door door a sañ a sëyiwaat bu dee ci jaamu yàlla dañuy wax ne xaydu amut mën a gën ja néew jigéen mën naa gis genn toq mu set day dem sangu bu julli jotee mu julli nga xam ne genn toq moo génn ci moom moo bu dee ci jaamu yàlla julli ak woor euh, gën jee néewi mbërëg amut nu muy toll amul dat waaw duñu wax ne day mat ñaari fan ñetti fan mën naa doon genn benn yoon la génne dara génnaatut bu julli jotee gisul dara day dem sangu ji dem julli bu doon ci ci idda nag jigéen ji doon iddawu ñu ne gis na genn toq rek ñu ne kon laab na jeex na man euh, mën naa sëyi déedéet mm-hmm. faaw ñu bàyyi bis lu mat bis wala lu ko jege ngir wóorlu ndax nit ku ñoo tey day gis baax ñu ne gis na ñaari baax bu saatee benn yoon rek mën nañ ko maye mu gis genn toq ko daan set na loolu dafa ndax mën naa jàpp ne set na ñu maye ko dox tuuti dara di génnaat te idda ajuñ ko ci ñetti weer ak nangam kon moom ci mbërëg rek lañ ko aje idda daa am kuy iddawu ci mbërëg mm-hmm. mooy jigéen ñi toll ci gis baax mm-hmm. ñii ñu la wax nga xam ne duñ duñ gis baax àggaguñ ci wala weesu nañ ko. ñooy ñetti weer la ñuy daw ci weeru jullit yi. loolu tamit lu mat leeral la ndax léeg nga gis ñoo xam ne euh, même bu fekkee seen période euh, gàtt na waaye du tee dañuy wañ ñi ñetti weer yi rek. déedéet maanaam ñetti mbir la ñu war a toog. ñetti mbir yi mën naa toll ñetti weer mën na koo yées mën na koo ëpp. Hmm. waaw wax kuy gis baax moom ñetti laab lay toog su ko defee nag léeg-léeg baax bu mujj ba mu gis deret genn toq rek daal di seet hmm. loolu la ñuy na bàyyi ba ngoon dara génnaatul doo xam set na bu doon jaamu yàlla nag bu tisbaar jotee day jul tisbaar foofu dañuy xàjjale kon aqallu muddatil xayd lil ibada ak bu dee ci idda hmm. kon loolu it jàpp naa ne lu mat a bàyyi xel la su ko defee nag gën jaa bareem maanaam mbërëg nan lay toll loolu day wuute xasaba jigéen ji mbërëg hmm. jigéen yi mbërëg ñeent lañ ñeenti xeeti jigéen la ku koy door a tàmbali mm-hmm. amagul benn baax kooku bu tàmbalee gis ba fukki at fukki fan ak juróom bu deret ji lépp su àggee ci fukki fan ak juróom nag na sangu ji mm-hmm. bu daggee ak bu dëggut donte mi ngi continuer ñëw waaw ndax dereti mbërëg du ëpp fukki fan ak juróom loolu borom xoxal wax mm-hmm. kon bu àggee day daal di xam ne da des feebar la mu dem faju ji dem sangu ji te jàmm tàmbali baax mooy kii doog a tàmbali mooy kii door tàmbali rek nga xam ne mhm. jigéen ñi gone la woon gis na baax mhm. benn fan seetut ñaar seetut ñett seetut day yee mhm. rek bu ak juróom mat sëkk nag te mu sangu ji dem faju ji kooku mooy kii door a tàmbali ak koo xam ne moxtaada la moxtaada mooy baaxoo na ko gis baax nag mi ngi tàmbale ci benn yoon masalan jigéen ñi tey la ma sa gis baax benn yoon toog ñetti fan mu set mu sangu day jàpp ne baaxam ñetti fan yeneen weeroo ci bu dul sëy mu gis baax ñetti fan set day dem sangu ci mootaade nag dañuy wax ne eh, iddaam mooy ñetti fan ci kaw baaxam baax bi bu fekkee daal ñëw yem ci képp loolu leer na day dem sangu waaye bu gisee baax bi baax bi ñëw dara ji setut ñetti fan la ciy teg bu ci tegee ñetti fan bu mu ko jéggi daa déedéet ko jéggi jërul mu yàgg fukki fan ak moom day teg ñetti fan bu fa ñetti fan xajee masalan koo xam ne baa xam juróomi fan la def na ko ay weer saa bu juróomi fan yi jeexee mu set wenn weer ñëw juróomi fan yi jeex setul dañ ko yokkal juróom benneel bu setee baax na bu setul yokkal juróom-ñaar bu setee ba hmm, bu setee yokkal juróom-ñett juróom-ñetteel boobu na fa lay yem bu setee bu set na sangu ji te dem faju ji xam ne mbërëg la xam ne man maanaam léegi wéradi la hmm. waaye nag koo xam ne tey baa xam daa doonoon fukki fan ak ñeent kooku benn bis lay ci dolli ndax li ma waxoon sànq ne mbërëg du ëpp fukki fan ak juróom kon ki ki nga xam ne nii mën naa yokk ñetti fan te du àgg ci fukki fan ak juróom kooku mooy yokk ñetti fan hmm. kon moxtaada lan mooy diiram ñetti fan ginnaaw ginnaaw fi mu daa yem fi daa yem koo xam ne daal juróom la daa gis mhm. su ca àggee mu nar a muy jàll mhm. na ca dolli waaye bu mu romb ñetti fan waaw dañuy dolli bu mu ñetti fan xam ne période am ci ñetti ci trois jours cinq jours la woon mhm. su fekkee ne am na benn jour bu ca dolliku wala ñaar na ca dolli yeneen trois jours waaye bu mu ko romb bu mu ko romb su ca xasee àgg moom set na set na lu mu gisaat rek du ko tudde loolu du ko wéradi hmm, la léeg-léeg nit am na ñaari baax hmm. léeg-léeg mu gis ko ñeenti fan léeg-léeg mu gis ko juróom hmm. kooku juróomi lay jàpp ñett lay dolli ci kaw juróom yi waaye du doole ñett ci li gën a néew loolu mën naa bàyyi xel mhm. moom lay demee ñett lay doole ci kaw juróom yow waaw salan mhm. tey ki am ñaari baax yu wute daal weer yi ñeenti fan lay doon weer yi fan bu dikkee ëpp fan mhm. lay teg ñetti fan yeneen loolu mooy ku ñaareel ki nga xam ne mooy moxtaada ku ñetteel ki mooy ku ëmb xam yi bari dañuy wax ne jigéen bu ëmbee dootu gis baax waaye teewul nag am na ci ñoom ñuy wax ne léeg-léeg donte néew na lool. Mhm. nit di ëmb di gis baax. su ëmb bi ëmmagul ñaari weer moo ki ëmbul ñoo yem baaxam lay topp rek ñetti fan ginnaaw baaxam su ëmb bi xasi am ñaari weer ba juróom-benn nag bu gisee baax mën naa dem ba ñaari fukki fan li ñu waxoon ne gën jaa gën jaa sori ci mbërëg mooy fukki fan ak juróom loolu ko ëmbute ko moom. Mhm. bu dee ko ëmb moom waaw bu xasee am ñaari weer. Mhm. ba tàbb ñetteelu weeram. bu gësetee baax donte néew na bu gësetee baax mën naa dem ba ñaar fukki fan ki am juróom benn weer ci ëmb bu gësetee baax mën naa dem ba weer donte ñooñu ne moom néew nañ loolu ñu gis na ki ëmb ba am deux mois su gisee baax mhm. baax bi fi mu koy yemale mhm. bu fekkee romb na baaxam waaw mën naa dem ba vingt jours bu mu ko jéggi mhm. bu dee juróom benn weer la am muy six mois fi mu koy yemale mooy mois. Mm-hmm. mooy fi nga xam ne fii bu ñu ko gis. Mm-hmm. na jàpp ne baax la. kooku mooy ku ñetteel. Mm-hmm. kon ki door a tàmbali ki am baax ak ki ëmb. ku ñeenteel ki moom la ñuy tuddee al muxtalito jigéen joo xam ne baaxam dafa normal day gis tey toog benn fan wala ñaari fan du gis dara gisaat. kooku mu la feqa lañ koy tuddee day boole bis yi gis baax la yoon. masalan baaxam juróom fan la woon. bu gisee gaaw. Mhm. jàpp benn lii ba rek altine gisul dara du limaale. Mhm. bisu yooyu da koy julli. même talaata mu gisaat. Mhm. bàyyiwaat daal di jàpp ne amoon na benn talaata mooy ñaareelu fanam. àllab alxames ajjuma mooy ñetteelu fanam bis yi mu gis rek lay wàññi. ba muy matal baaxam su baax ba matee set mu sangu ci bu setut mu yokkaat ñetti fan ci anam googu waaye bis yi mu gisul baax du ko limaale te da koy julli. ki nga xam ne daal moom régalam moom ñëwul toqaloo moom noonu lay def maanaam su fekkee da koy gis tey jëlal ñaari fan su jëlalee bis bi mu ko gisut mën naa julli waaw da ko daa war a julli sax waaye day day day day jël day taqale fan yooyu mhm. maanaam day wàññi fan yim jëlal fan yim gis rek gis rek lay lay lim waaw ba mu yem fan bis yim gisut ba mu yem ci aada baaxam mm. ñetti fan la woon wala juróomi fan mm. bu baax ba matee baax na mu set bu setul mu tegaat ci ñetti fan yi bu ca bu ca tegee jot fan yii waru koo jéggi. waru koo jéggi moom itam. kon ñeenti jigéen ñooñu la. Mm-hmm. kuy door a tàmbali. Mm-hmm. ku ko baaxoo ku ëmb ak ku dara itam mm-hmm. ki nga xam ne nag maanaam xëy na mën naa am dafa dafa doon nañ ma ko laaj jamono ya rek nga xam ne dafa def loo xam ne day tax période maanaam baax bi di ñëw ci ci lu normalut nga xam ne day ñëw fan yi di ñëw di ñëw ba daanaka lu mat ay weer wala wala nangam kooku lu lu luy moom. waaw moom fii gisu ko rek. donte def na ay pexe ba gisu ko ku set lañ ko jàppee. waaw maanaam su fekkee ne pexe yi dafa tax mu mu mu mu mu ñàkk organiser ni mu ko daa gisee nga xam ne daf koy gis di jëlal di jëlal. waaw lu man a xew rek moom saa yoo ko gisee deret la moom. ko gisee rek deret la. allahumma bi ñu ko gisee mu toog fukki fan ak juróom door koo gisaat. Mhm. su boobaa mu mbërëg mu bees la. Mhm. ndax dañuy wax ne danañ ñëw biir bi gën a ñëw bu mbërëg dogee balaa ñëwaat. dana mat fukki fan ak juróom hmm. kon ku gis deret mu set toog fukki fan ak juróom door koo gisaat loolu meneen mbërëg la hmm. waaye du doon mbërëg mu njëkk ma mat na ci bàyyi xel baax a baax hmm. su ko defee li ñuy xamee jigéen set na daam ay màndarga am na lu ñuy wax xassa am na lu ñuy wax jufuuf maanaam ñaari màndarga la am ngir xam ne set na xam nga jigéen bu tolla foofu day am lu mel ne coton muy def ci awra yi saa bu génnee dañuy bëgg bala bu julli jotee mu dem waajal boppam xool su ci gisul dara du yees mu xam ne set na. loolu hmm. la nga xamee. xam ah, dal deret xam nga day génn ndànk ndànk. waaw su taxawee moom deret ju yees du génn mën naa génnee coton bi tooy waaye nag deret ju yees ci nekk. Hmm. loolu mandarga la am na ndox mu weex muy génn ci mujj mbërëg yu tuddee xas loolu nag mooy gën a firndeel ne set na wecc moom ñaar yooyu lu mu ci jëkk a gis baax na bu dooree gis juufu fendi fendi yi mën naa xaar ba ci mujj waxtu wa ngir ngir wóorlu waaye bu ci nekk rek mandarga mu ñuy xamee ne laab na ci la bokk su ko defee li ñu waxoon sànq ki ki am bis yu ñu gis yu mu dul gis bis bu gisul bu ne saa bu setalee sangu ji hmm. bu julli tee mu julli bu doon daan day woor hmm. bu gisaatee dara dara bàyyiwaat it eh, jàpp naa ne lu mat lu mat di bàyyi xel la hmm. eh, loolu mooy eh, li nga xam ne moo aju ci mbërëg kon gis nañ ne lan mooy mbërëg deret la wala kudra wala sufra boo mhm. xam ne ci jigéen lay génne kanamu gi jigéen ci lay génne jigéen ju toll ci ëmb moo koy gisee te moo génne boppam ab gaañu gaañu génnewu ko wéra di génnewu ko yu mel dara génnewu ko mhm. moo génne boppam mhm. loolu lañuy ñuy tudde xayd mu diir boobu muy am waj'alhu maskana xurujin min dulam للنور واكف عنه كل من ظلم